Serigne Cheikh eh, Bara Dolly président groupe parlementaire liberté et démocratie ànd ci coalition bi teewal président Abdoulaye Wade muy parti démocratique sénégalais waaw visite bi li ko waral mooy comme ñu ko daan amalee rek mooy bu waxtu yu ma a jot dañ daan ñëw amal siyaar amal siyaar ñëw siyaare sëriñ bi ñëw sàkku ñaan comme ni ñu ko daan amalee bi yoon ñoo ñu amal ko ci turu coalition muy parti yi nga xamante ne ñoom ñoo ànd te ci kanam yàggatul dara danañ leen jox turu coalition bi ni mu tudd yéen ñëpp xam ngeen ko muy parti yi xam ne ñoo nekk ci biir loolu moo waraloon tey ñu amal ñu ñëwoon fii tey doon amal ab siyaar àggal moo ñu fi indi waaye nag ministre de l'intérieur su waxee loolu defu fi dara ndax yéen ñi dëkk Touba question bi man ngeen koo tontul seen bopp ndax assainissement am na Touba dama jàpp ne dëkk su demee ba nekk deuxième ville du Sénégal ci wàllu démographie ci wàllu population ci wàllu économique jaadu woon na mu am assainissement bu sérieux assainissement bu sérieux mooy ñu jël mbedd yi xotti ko def ko ay kanaal ba kenn du amati ay fosse septique ci biir kër ca Touba ba léegi kër goo dugg muy yissa sax ci jumaa ji amul benn assainissement ma jàpp ne kon jaadu na ñu amal assainissement fii ci Touba kon su di wax loolu jàpp naa defuñ fi dara. waaw euh, solution bi mooy ñu jëlee leen fi rek ëllëg ñun suñu ñëwee mën a defar réew mi. parce que ñëpp xam ne li leen war defu leen fi dégg ngeen scandale bi nga xam ne tey moo am assemblée nationale ah suñu réaction mooy coow li bari na li ñu tuddagun yéene wuñ leen ko waaye ñaar suñu ñaari collègue député lañ tudd yoo xam ne Benno Bokk Yaakaar lañ toog lañ lañ bokk muy ku ñuy wax Mamadou Sall ak ku ñuy wax bi ay ñoom ñëpp ay député lañ kii nekk président conseil départemental bu euh, Sédhiou nekk aussi député kenn ki nekk aussi président conseil départemental bu Salémata mais aussi nekk député keneen ki ñu ci tudd aussi tamit ah, député la woon ci douzième législature actuellement c' est le président conseil départemental de Saraya ñoom ñett ñooñu la ñu tuddagun ba fii ne man di wax ak yéen amul kenn koo xam ne ci opposition bi la bokk kun ci tudd amul ndax su amee man danaa ko yëg parce que danañu ma informer mais mais yëf yi dafa war gis ngeen bi ñu yëkkati Khalifa Sall ak Sonko ak ñeneen ak ñeneen mais dafa gaawoon pourquoi pas tudd nañ leen mais yoon na dem ba sër rek doxal li muy doxal su ko defee ñu déglu leen yóbbu leen ci kanam yoon tonti suñuy collègue lañ yéene wuñ leen ko waaye na comme dugg nañ ci loolu bu ñu sañoon mbir mi leer loolu daal mooy suñuy taxawaay wasalaamaaleykum wa rahmatullah